mooy loolu bi mu amee dañu gis ni yaa en fait le procureur de la république et sorti pour wax ni dafay maanaam ouvrir une enquête pour effectivement xool ñan ñoo ko tasaare ah, waaye mais Adja euh, tey bu fekkoon euh, logique pour logique mhm. le procureur de la république dafa maanaam nekk koo xam ni li ko yitteel mhm. mooy askan wi mais procureur de la république lu tax bi nu jàppee Ousmane Sonko jël ses données personnelles mhm. jël lépp wane ko ci maanaam ay réseaux sociaux lu mel ni ay Anita et tout ñu gis nañ ko fi lan moo sabab ci jamono jooju le procureur de la République autosaisir wul d'accord ndax euh, bon peut-être fii nii le fait que mu nekk loo xamante ne quand même euh, selon mu fi mu jógee mu nekk lu lu doy waat parce que sànq El Hadj Assane euh, mi ngi koy wax mm. surtout bu mu jaar normalement warul woon génn. mais de la même manière de la même manière. Mm-hmm. Adja Assou la. de la même manière. Mm-hmm. Ousmane ko jamono bi ñu ko téyee ci wàllu yoon. Mm-hmm. ba ko yoon tegee la ko yoon ci bopp le code de procédure pénale dafa définir naka la ñuy téye doomu aadama ba naka lañ koy jugé ak fu muy jaar diggante boobu ak kam ak yelleefam dañ ko war a sàmm bépp buñ fi violé gis nga ni nu état de santé amee maanaam mm, cëslaay ci wàllu yoon noonu la également c'est données personnelles ak banam bu mën a doon ni koy protéger noonu lañ war a protéger moo tax ma ni mhm. maanaam tey jii loolu tey na xel mhm. est-ce que yitte ji nekkul ludul xoolaat ñi gën a jege Ousmane Sonko jël tuuma joo xam ne tegul ci si ci dara. Mhm. ñu teg leen ko ngir mën leen a teg parce que boo seetee Ousmane Sonko bi ñu ko téye ba léegi. Mhm. mboolem ko mu àndal maanaam yoon teg na la loxo def la mandat de dépôt. boo ko defee dootoo mën a wax man mii di wax ak yow xëy na qualité yi ñu yor moo tax sax kenn mën noo teg waaye wóor na ni mhm. kàddu yi ñuy biral nii bu fekkoon xay na man amuñu lu nu lu nu aar boo moytuwul peut-être dimanche wala lundi d'accord loolu mooy la vérité